waaw merci beaucoup mon cher déglu naa li docteur wax mais bëgg naa ñëw un peu ci l'immigration clandestine. Mhm. avant may dugg ci li mu wax ci affaire justice beeg yooyu. immigration clandestine benn phénomène bu métti la la jeunesse sénégalaise di ko dund ñu ñëpp ñu di ko naqaru mais man fi may commencé foofu mooy d'abord amul j'en appelle à la responsabilité des parents ndax parents yi bëri tey seen doom dem te yëg nañ ko wala boog ñoo leen si jàppale. Mhm. mobiliser ay mooy jox leen ko. dëgg la nit doo ko xewal soxlaa la vie est difficile on ne mais man pouf dama ne parents yi d' abord nañ waxtaan ak seen i doom parce que kenn ñaanul yàlla sa doom dem dem ci géej gi. Mhm. waaye bu sa doom demee des ci géej bi yaay ñàkk. alors que mën na la mënoon na la mënoon na la féetee. mais reportage yu ñu def aussi dernièrement parents yi ba yëgu ñu seen i doom dem nañ ah. non si a xam. non non dama lay wax am na fii ay localités yoo xamante ne nii ñooy organiser wut gaal yëpp seen i doom. xalaat ne gaal gi bu départ Sénégal tant de jours dana war a yegg Espagne bu ñu toogee tant de jours gaal gi yeggul ñu xam ne musiba am na ci la ñu soog à l'être yi mu la xam naa ko y a beaucoup de localités au Sénégal tey seeni doom tey ñoom xam nañ ñu ngi dem mhm. des fois ñoo koy cautionné mais nag li ma wax rek mooy du ma ko xew parce ni ku nekk ak jàngoroom lu tax mu dem ñu dem peut-être la vie est difficile mais dama il a plusieurs raisons te aussi yeneen yi mën nañu koo dégg waaw li koy motiver le contexte économique la situation politique. Mm-hmm. Euh, voilà bëri na ci ay mbir yoo xam ne dafay encourager ces ces départs. waaw li koy motiver d' accord euh, ci mais dama ne amul benn pays au monde bu mën a jox sa jeunesse un emploi donc dëkk boo dem même en États-Unis en France au États-Unis en France y' a am a y' a le chômage. Mm-hmm. mais dama ne foofu nañu xool demande bi ak qu'est-ce que l' État a pour ces jeunes pour cette jeunesse là. le président Macky Sall dans sa politique de jeunesse on a créé beaucoup de mécanismes pour aider les jeunes dëgg la matul doyul mais yaa DER mu ngi fi FONGIP mu ngi fi xëyu ndaw yi mu ngi fi ak euh, leneen mu ngi foofu. 3FPT 3FPT mais leur efficacité. ak suivi bi audit bi aussi. c'est important xam nga audit bi loolu c'est après mais dama ne quand le président moom qui est en charge de définir la politique de la nation am xalaat boobu teg ko donc moom responsabilité am def na ko lees mooy ñu ko dénk ñoo war a ko ne doxal loolu jàll muy wax la la mm-hmm. formation gis nga yow monsieur man moi je nous nous nous étions étudiants xoolal da ngay jàng ba am master boo génnee looy nekk jàngal ko wala ngay jeune dafa war a am qualification et pour qu'il il faut une donc bul minimiser. fonds bi ngay wax noonu pour les Allemands je ne sais quoi mais loolu c'est important parce que si les jeunes n'ont waaw ah, d'accord mais si les jeunes n'ont pas de qualification ils ne pourront pas s'en manque de formation boobu de qualification boobu responsable de beaucoup de choses mais à des niveaux différents parce que état aussi mu ngi def kem kàttanam ndax xëy ndaw ñi ak yenn yi ak structures yu bëri yoo xamante ni on les mais pour encadrer pour former la jeunesse je tout à fait d' accord yombul nag parce que actuellement c' pas le Sénégal mais mais mais mais les milliers de jeunes qui quittent euh, le pays pour dem. Euh, le Sénégal aussi mën nañu jàpp ne on est on est pas en sécurité non parce que bu fekkee ne ku mu neex nga génn réew noonu comme ça. mais sans qu'il ne rien du tout. le président Sall démb la wax gars yi ay mesures est ce que yéexul aussi. mais doyen parmi ñi dem am na dañu am seen métier. non je ah mais si on y met les moyens mën na nekk ah. est en de faire des efforts mais mënuñu amul sax gis nga sur le plan amul sax benn pays boo xamante ni mën na surveiller à 100 pour cent. non je suis mais je est en de faire des efforts la marine nationale la marine nationale on est en de faire des efforts mais am na ñoo xamante ni mënul leen calcul mënul leen mënul leen canaliser parce doo ko yëg Cheikh doo ko yëg. donc vous baissez les bras. non on ne baisse pas les bras. yaa ko yaa ko wax barki démb yaa ko wax léegi le président a des instructions des instructions fermes au gouvernement le premier ministre le ministre de l'intérieur. non la. joxe ñoom lu ñu ci mën ñu ngi koy def mais tout ne pas contrôlable comme on le dit parce que aussi nit ñi mënoo maîtriser lépp am na bu ñuy dem doo ko gis mais bu sa état bu sañoon mais sa benn benn benn état bëggul doomam di dee ci géej gi. bëgguñu ko la jeunesse bi tukki dañu leen pour ñu toog développer réew bi mais on vous a élu en fait pour justement ngeen éviter loolu bu leen ne benn état bëggul la jeunesse non je xam nañ ko mais je dire lan ngeen teg concrètement loo xam ne mën na tax xale yi parce que boo seetloo euh, dafa dafa yokk en fait dafa yokk bu baax ba inquiétant alors que dafa waroon a wàññeeku bu fekkee ne am na lu ngeen def li ñu teg li ñu teg sëñ bi mooy mécanisme yi ñu teg pour dimbale la ñuy toog ci réew mi mais dama na mécanisme yooyu am ñoo xamante ne intéressé wu leen am ñoo xamante ne am nañ sax seen i liggéey am ay mooy pourtant dem nañu préféré immigration clandestine moi ji yoo xam ne. est-ce que ngi yooyu ngay ngay wax pour xam ba xam les fonds euh, les formations ñi ngi dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo pense que loolu c'est un ñu koy saytu. je pense ko ñu ngi koy def mais tout ne pas être en place publique mais yaakaar naa lu mel ni DER. Mhm. yaakaar naa lu mel ni fpt yaakaar naa lu mel xëy ndaw ñi FONGIP sont des mécanismes que l'État a mis en place pour accompagner les jeunes en termes de formation et en termes d'emploi et je pense que mu ngi dox ni mu war a doxee mais nag la perfection n'existe pas dans ce monde. Mhm. mais man jàpp naa ne yooyu mu ngi avancé. et que y a beaucoup de jeunes dans ce pays qui ont eu leur boulot. y beaucoup de jeunes dans ce pays yoo euh, xam ne créé seen entreprise à cause de ces structures là. Ah. ma ñëw ci yow.